en fait ñoo xam ne dañoo def jël après delu créer association tuddee ko rëccu xam nga lan moo waral tey loolu ak yow lan moo waral tey association waaw loolu tey jii boo gisee tey ñun ñu dem tey ba yàlla tey suturaal ñu tey ñu ñëw ñu ñëw tey ba ci Badara Kebe tey ku mel ni tey Badara Kebe amul fii am na fi sax ay Adama Faye ngi fi ay ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi mais amuñu tey jàppale ñun tey jii Badara Kebe lañ am tey moo tax tey ñun suñu lépp tey dañ koy jël tey def ko tey ci Badara Kebe waaw ah, parce que ku lay ku lay génne ci mucc bu bon moo gën ki dugal ki lay ki lay dugal ci lu baax moo gën ki dugal ci lu bon ñun nag bañ fi ñëwee ba tey sonnuñu waaw ah, ñun ñëpp jaar nañ kaso xam nañ li kaso bi di saf mais kaso bi doxul ñu sax ñun dox na loolu daal parce que kaso bi baaxul mais tey jii ku mel ni Badara Kebe bu ñu ko amaatoon fii di Ngaraaf dañ koy sant yàlla bu wér ndax tey am na jalmaan yu bëri tey bu ñu génnee kaso dañuy ñëw fii direct fii ci kër gi fii du ci man kase amaan na ñenn ak ñeneen ci biir kër gi ñoo génn dañoo génn léegi la mais si kanam tuuti ñu fiy ñëwaat valeur cent personnes lay jël ci biir kër gi di leen dundal ci loo xamante ne ci doolay poosam lay jógee ñun nag ñun ñëpp mais am na fi ay jour ñi ñu ngi jógee ba ay ñi ay mbaaw ñi ay petit ñi ay grand mbaaw ñi ay tëngeej ñi ay ndar lépp ci ay dooleem la di dimbalee de. léegi jot ko defaraat waaw wax dëgg yàlla moom rëcc naa ko man bu mu duggee kaso dama ko rëcc ndax yàgg naa fi yàgguma fi mais tey jii ñi fa nekk am naa fa ay xarit def naa fi six mois mais jotuma ko tëddee foofu noonu lépp maa ngi ko tëddee biir Kébémer tey jii maa ngi koy maa ngi rëccu ndax li mu fa te tey ñaanu yàlla tey mu yóbbaan ma di koy dénk tey sunu borom yàlla na fi yam te ñi nekk itam ci kaso bi maa ngi leen di masaw ci ki mujjee gaañu ni yàlla na ko yàlla xare àjjana kaso bi métti na ku ne méttiwul daa fekk da ngay wax la neex kaso bi amul jàppale benn kaso bi gars pour ñu naan ndox problème la pour ñu sangu sax problème la pour ñu tëdd sax problème la ci dàmbaloo bi la ñuy fees ñoom ñëpp dell xam nga loolu dafa métti ci dàmbaloo nga jël valeur cent personnes teg leen ci kaw dàmbaloo bi dàmbaloo mooy ci kaw benn genre séeraas kii day tëdd ma tëdd ñu teglante boobu mun naa tëdd ni sukk écarté sama tànk waaw fii bu xatul woon ni léegi léegi léegi moom la ñuy tëddee foofu kon dangay ngay mujjee sax sa rongoñ day mujjee soteeku ñuy wax xamuñu dara nekk kaso bi kaso dafa métti nañ jàppale jelmaan yi jelmaan yi sonn nañ trop ci biir kaso bi am naa fa ay xarit ñu ci biir kaso bi billaay walaay taalaay am naa fa ay xarit yoo xamante ne ba tey maa ngi leen di mos a coono nañ muñ lépp loo gis day jeex samay gaañ foofu noonu. tey ànd ak Badara si booy yi nga xam ne peut être ku mel ni man. ci ku may déggal da ñëw jël ci yoon bu baax da ngay ñëw man yoon bu baax da laa ñëw wax dëgg yàlla ndax am naa kër am naa jabar am naa doom sama jabar xam nañ maa ngi fi sama njaboot xam nañ maa ngi fi. yoon bu baax daal moom andi fii daal pour jéem a génne daal sama bopp daal ci lu bon li ma doon nekk ndax li ma doon dund noonu ma amul lu ma deful def na lu nekk lenn la ma yàlla deful moy mu tëb kër jàmbur dem sàcc mais def naa lu nekk ci banditisme def naa lu nekk tey jii jëmm ji moom xëcc ñun jëmm ji amuñu fayam dañ koy bàyyi ak suñu borom mi yàlla mi mën mi yàlla mi defar ñu ko koy bàyyi ak suñu borom lu mu somb nii nii di ko somb ko nii yàlla suñu borom xetali mu mën ko si jàmm ak salaam mais manqué nañ daal autorité buñ jàppale état bi dafa a jóg pour jàppale ñun waa Grand Yoff Grand bonul ku taxaw ne Grand Yoff bonul yaay wax lu la neex rek Grand Yoff bonul nit ñu baax ñaa ngi fii Grand Yoff barke nit ñu baax fi nekk voilà mais tey jii ku xëy tamit gisoo tamit loo liggéey amoo loo jàpp ñii ñu ngi dem sàcc ji ñii ñoo ngi jaay dorog ñii ñoo ngi xool leen man mi tey jaar naa si yooyu noonu yëpp mais tey dama ñëw tey ñu ngi nii amuñu liggéey mais tey bu amee tey ku mel ba Badara Kebe nga ëpp ko doole wala moom ëpp la doole da nga ñu dem def société ibi benn genre magasin wala benn société dugal ci nit ñi ne kaa leen liggéey kaa leen jàpp ci lii buñ ko amoon mu gënoon ñu trop. mais tey jii amuñu daal ku gën kii mais yàlla na ko yàlla may jaamu daal. bu baax ndax yaakaar naa ni kenn ku si nekk da ngay ñaan yàlla rek sa njaboot wala sa rakk wala sa mag yàlla di leen suturaal ñiy bañ di yegg foofu ndax foofu doy na waar bi façon xeetu doy waar xam ne li ma fa gis maara day donte yàgguma fa nag waaye damay jooytu rek wala damay wax comme samay frères yi fa nekk wala samay mbokk yi fa nekk ñooñoo moo tax a wax. maa ngi ci mbedd bi di dox samay soxla di waxi samay soxla dëgg waaye am na ñu fa nekk ñi nga xam ne dafa ñu tind ñu xamuñu nu mu demee te yàgg nañ fa loolu kenn jógul si ñoom damay ñaan rek ñoom bu fekkee ñu ngi ñuy dégg ñoom ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñu xool noonu ñooñu naka la ñuy dox la doxee ak ñooñu ba dimbali leen rek ñu yeewi leen ci kaw bu fekkee ni topp nañ leen ba sonn gisuñu si ñoom lu leer.

de jógee deux ans lañ ko fa tëjoon ci lan ci dafa que ci koñ bi rek tapas nocturne day def ko la day nek ci koñ bi di sekar goudi gi du yoxu gars japp yobu tej 2 ans ya nga gis genre institution yoy léegi nak kon ñun buñu amé leader bi nga xamné dañuy xéxal wala dañuy taw ci non ñun lenn rek moy suñu objectif moy ñu and ak mom top ko jappalé ko soutenir ko ndax ko fa amul rak am nga fa mbokk Grand la waaw waaw ñun suñu rôle leen rek la mooy que ni ñun Grand Yoff fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi eh, bonuñu tamit déedéet leen daal xam nañ ko mooy que ni suñuy rakk yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal du te saa ñu gisante ak ñoom dañuy waxtaan ak ñoom di leen jéem a teg si pis ndax ay dóorkatuwaar ñoo fi nekk doomu Grand Yoff liggéeykat la doomu Grand Yoff champion la doomu Grand Yoff gaynde lañ dañuy yàq nag deru Grand Yoff di wax naan Grand Yoff dafa bëri lii Grand Yoff dafa bëri laa déedéet moo di si place bu baax lay liggéeyee man mii di wax ak yow ñu ngi fi jot a waxal yëpp si place yi baax la ñuy liggéey waaye daa am ñi nga xam ne dañuy jóge autre secteur ñëw ba ci biir mim Grand Yoff bi di fi def naka sudul noonu kon ñun bu ñu amee leader gi jàppale bu ñuy jàppale ngir taxawuñu pour loolu noonu dañ fi ñun du def dara lu taxaw ci ginnaaw ànd ak moom taxawu ko nag ci bépp côté ndax képp kuy yeewoo Grand ñëpp xamante fii dafa nu mu yaatoo ni ñëpp xamante kon lu ñaw xaju fi lu refet rek moo fi xaj kon bu ñu gisee ki nga xam ne lu mel ni Badara Kebe suñu grand la yàgg lii du acte bu mu njëkk a def def na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bu ñu gisee acte bii nii nga xam ne mooy suñu buumu xol ndax acte bii moo nekk suñu nakaru xol li mu sumu nii kon ñun dañ ciy taxaw. dañ ci and ak mom combattre ci ba yalla may ñu ci ndam inshallah rabbi. tay li jot xew en tant que nga def kasso tay li xew ci kasso bi ñëpp diko waxtane senegal ban gis-gis nga ci am ban jangal nga ci am ban nakar wa léegi amna ci nakar ma leen jaale ñom yalla ñu yar xare aljana di yéexal ñu metna trop trop trop trop metna trop parce que dee kasso rek dafa doy war parce que nek souverain bo xamne xam kenn ko fàtte ba kër ñuy sangoo suuf moo xam ya def mo xam defo dafa doy war de kasso dafa doy war dafa doy waat lu ëpp loxo la léegi leen leen mun a am gis nga lépp lu koy waral mooy tey bu ñu jëlee gox jox fi doomu aadama exemple quoi ñu ne kii moom mooy meeru Grand Yoff kii mooy meeru Médina kii mooy meeru gis nga ñi fi ñoo xam ne ñu ngi nekk si yoon boo xam ne baaxul da leen xëcc indi leen ku baax kenn du ko defar ku bon la ñu war a defar ah ku baax de kenn jaru ko defar ku bon la ñu war a defar mais bëri na fi am na fi autorité yu nekk fii yu bëri bëri kaso bi baaxul de un benn dafa màgget. fii lu courant yi baaxul ñi koy defar ñi defar kaso fi ñu jamono toll nii ay prisonniers lañ ay 1000 la leen fay wala ñu jox leen ay meew fii yi ñu koy defar foofu ay prisonniers lañu état bi day jël xaaj jox leen ñu lekk ko jël beneen prisonnier mu defar kaso moom amul lekk bu baax amul tëdd amul dara mett na trop trop trop trop trop trop trop trop ah, xool ñu nekk Grand Yoff mën nañ ñaan pesom mën nañ 500. muy Forbe muy Campenal muy Signaay bi mais këpp ku génn kaso képp ku génn kaso da nga ñëw ba siège Badara Kebe bu la xamee bu la xamul li dina ko def xëcc la ne la dëkk di la jox añ reer ndéki argent de poche portable loo jàmm mu defal la ko su fekk amee prise tabaski mu génn mu woo gaa yëpp ñëw mu jël enveloppe. am am am am kon moom jaanam wàcc na ko daal moo nag li muy yott nag tamit état ma war a mën a jàppale. Mm-hmm. du yomb yomb bu yàggee day dem côté bu yàggee day daanu ñun nag ñu ngi ñaan nag état nag na ko dimbale. mais tey avant avant loolu yëpp tey am na tamit liggéey moom d'accord mu ngi jàppale ñi nga xam ne tey nekk nañ ci jafe-jafe yooyu. Hmm. yéen ñi nga xam ne tey dund ngeen li nekk foofu biir prison. Hmm. te yéenewu leen seen rakk yi ci lan nekk di def biir Grand Yoff ak Badara pour que loolu bañ a bañ a bañ a waaw waaw te xam nga tey benn affaire bi am xam tey boo fi jëlee benn booy nga ne ko booy moytul bàyyi li ngay def góorgóorlul te amul liggéey te man mii. <laughs> yoruma moom lan lay def léegi il ñoom na ay centre nag pourquoi fii ñoom fi ay centre am fi ay am ay projet comme ñëpp mais loolu moo yoon loolu moo yoon parce que tamit bon ni kuy jooy mënul na kuy jooy ah am nga imagine fii siège Badara Kebe ñaata personnes moo ñoo fanaa fanaan plus ay cent personnes imagine dépense añ bi ñaata lay doon ndékk bi ñaata lay doon reer bi waxi noppi quoi ñaata chaque jour gàtt gàtt gàtt gàtt dana yàq beneen deux cent mille si ay lekk rek ma la ay ndoxu ndox muy fay fii ak taalibe yi ñëw fii ak maire ñoo ñëw ak ordonnance yi mais état dafa war a doomu aadama ti et kii xale la xam nga mënoon naa la wax carrément du ma ko déglu ah mais day day taxaw di ma waaw mais état moo war a jóg am na xam ne kuy def lu baax mais da ko si jàppale tamit parce que loolu seen la. lol avantage état la. avantage Grand Yoff tamit. waaw Grand waaw avantage Grand la mais tamit ak état parce que nit nit nit day fu même nit day dem defa ba sës moto tax dafa ay boy du génn kasso du dugat du génn kasso du dugat mais mom seul mo fi nek Grand Yoff lu Grand Yoff mu toll Grand Yoff xaral la mom seul mo fi nek ben loxo da mën a toppatoo ay 300 personnes nango dimbalte yalla tax gane baye lopp nak nag fii am na autorité yu nekk fii biir Grand Yoff amul kenn ku si taxaw ku si dimbale doomu fi fii amul kenn xam lu leen dimbalee xam xam état fii la leen dimbalee heure xeex jot élection jot heure xeex jot voilà daawda kaay eh kii kaay mais léegi ñun commencé nañ muus na ñun commencé nañ muus bu baax a baax bu yeboo nag loolu bu yeboo ñoom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax bandi bu muus moo gën a bon si àdduna commencé nañ muus mais ñaata personne fi Grand Yoff ñëpp bar si si barake be amul sax benn autorité bi ñëw di ko di ko pousse ne ko ab ah, waay gaañ jokkoo njël li rafet na waaye teel ama mu gën a naaj mais nga bëgg a tee bëgg lekk yëpp boo amee nga jox ko say mbokk ñoom seen mbokk la leen koy jox am na ñoo xam ne liggéey ñu ngi si mairie bi ñu si mairie fii samay gaañ lañu kenn liggéeyoon sax weer ñu fayeeku ñu samay gaañ lañu bu ma ku woon ma mën la diw la diw la diw te mu ngi fii di fayeeku ku nekk am na fi ñaari métier mais la moo tax ñun la moo tax ñun doom gaal juddoo fii yaroo fii tv ku fi gagné ñoo tax nga gagné pour lan lolu lolu pour lan la état bi na déglu lolu ba lu baax baax dina Macky Sall bu yow nga baye barra Kebe euh, nga baye barra Kebe xel gu baaxa baax ak comme autorité dañ ko baye xel gu baaxa baax parce que mu ngi def lo xamné fi am na ñu nekk fii ñii ñoo xam ñoo la ñoo la ñoo nekkal grayof nekkul la grayof Yoff nekkul la Grand tay tey nekkul la Grand Yoff bu la bu yeboo nga bàyyi ko xel gu baax baax na nako ñep deug nako ñep deug ñaata ponk la nekk fii biir Grand Yoff fii amul sens interdit fii amul sens interdit chaque jour nga gis fii doomu bu nekk ba kañ daa mën a génne moo nem chaque jour muy joxe joxe joxe joxe joxe joxe ne gars yi nañu waxante dëgg te yàlla tax quoi gaan bàyyi bët bu rusul toj bët bu rusul toj ndax moom de un benn moom mu ngi jàppale sénégalais ah mu ngi jàppale sénégalais de si benn côté. parce que man tey lu lu ma soxla bu ma soxla cent mille francs ñëw ba si moom moom dafa may jox ma def sama daamoon kon lu bëri naa ko moytu quoi mais ba kañ xool Grand mu mel xool mu mel xool ba ndox taw bi ñaata autorité ñoo nekk fii doom non dë dëgg wax nekk lu mu toog sax moo tax may wax aduna mu neex aduna mu nekk mu wañ sama loxo naa ma defal lii fekk man ma man li am laa wax ñaata doomu aadama. tey jii boo doxoon fii su koñ bi nga doxoon su bi billaahi wala nga dox ba gën a yof nga dëkk micro ñu ne la Badara Kebe wax laa la wax de ñëppay wax boo dëkkoon micro nga nga nga fii nga ne waa léegi loo xam si Badara Kebe du pa du maire du taalibe du xale du ndaw